Yo. Yo. It's dead in this town. xam naa maa ngi gis waa Jagana Style dañu koy woo uh, Jagana Style woo leen ma waa Jagana Style Binu Sakho moom itam vraiment mu ñëw uh, ñu daal di koy uh, poser un petit peu quelques questions par rapport à sa collection bu magnifique bi nga xamante def na ko léegi-léegi woo leen ma borom Jagana Style s'il vous plaît voilà mu ñëw léegi-léegi ci plateau bi moom itam pour euh, expliquer nous euh, un peu sa très belle collection. Mazaledine de Sénon une grande dame, une lionne, une femme vraiment qui représente la région de Tourbel partout au Sénégal et dignement. elle est là ce soir, bien il était même là ce soir pour euh, présenter une très belle collection. Bon Ramadan beaucoup de sénégalais qui disent, wala Diourbel waaye ku ko ci ça sa xol sa dina borom la grande dame la noire sur de Ben, Binoussaro, nu saaxo TV.

Euh, waaw hein. collection bi tey dama indi collection taaru euh, pour Diourbel xam nga Diourbel moom ñun fii la ñu dëkk fii la ñu juddoo fii la ñu màggee dañuy dem rek pour uti lépp lu ñu am dañ ko indiwaat fii waaw ñun déjà Diourbel Diourbel la ñuy liggéeyal donc euh, ñu indi woon tey collection taaru pour wane taaraayu Diourbel wane taaraayu aussi jigéenu Diourbel parce que ñi fi nekk ñëpp ce sont des Diourbellois et des Diourbelloises waaw. gis nañ que ni que ni Binouche Dagana. Voilà, il est très connu partout à Dakar. Voilà, tu fais des choses magnifiques. Mais est-ce que euh, Diagana Style, un jour ou demain ou après-demain à Djurbel, pourquoi pas Bien Diagana sûr. Style Pourquoi pas Lolo, moi, c'est nos rêve. suñu rêve bu gën a rëy ñu def am implanté wu fii à Diourbel Ben Diagana Style boo xam ne c'est international fépp fu ñu mu nekk suñu œuvre suñu lépp loolu mooy suñu objectif bu gën a du nom de Diagana Style en tout cas, on est trop fiers de toi. Moi aussi, je suis trop fière de vous. Merci, vous <laughs> Merci. <laughs> Merci. Machallah, mention spéciale à elle, vraiment. C'est une fierté euh, de la région de Djoubel. C'est une dame qui fait la fierté euh, de toutes les grandes dames et les travailleuses. Vraiment, euh, jeune entrepreneur qui montrait à chaque fois ses qualités, ses capacités. Quel moment. En tout cas, vive ñi nga xamanteni ñoy ñooy bidaw events télé wax kan ñu ngi biir théâtre de verdure xamna ci kanam daanu ñëwaat gëna yaatal ak yeen andi laatal leen yeneen ay artistes ak yeneen ay kilifa ci plateau bi ñu yaatal bu baaxa baaxa baax a baax merci beaucoup ci kanam kenn du yeen yéen. Voilà, amis téléspectateurs de la télévision TV, la télévision des valeurs. On est toujours au théâtre de Verdure et cette fois-ci vraiment on est avec la grande dame, la lionne, la présidente directrice générale de Yumas, Bromklas glace yu crêpe oh là là di nga ñu ray rek ñu euh, merci Didier Ange je remercier maa ngi leen di nuyu téléspectateur di leen nuyu waa Diourbel yéen ñëpp aw seen fay UMAS est là pour vous ah ñu ngi fii daal kontaan nañu ci waa Diourbel bu baax ñu ngi fii pour vous servir. voilà madame Camara tey ñu gis la ci li nga xamante ni mooy dîner de gala wu association Biddew Events bi ndax mën nañ xam lan moo waral teewaay bi. waaw parce Biddew Events dañu nekk booy yu engagé yu nekk Diourbel. ñoo xam toujours il œuvre pour le social donc loolu buñ ñu ko waxee ñun ñëpp ñu nekk doomu Bawol ñun ñëpp aussi bëgg lu jëmale Bawol kanam te bii yoon ñu koy def spécialement pour la prison de Diourbel donc loolu ñun ñëpp ñun ñoo war a takku ñu jàpp ci loolu moo tax bii yoon moom on est venu spécialement avec notre délégation ñu ñëw prêter main forte à nos collègues à nos frères à nos à nos à nos sœurs mu ngi noonu loolu daal moo tax ñu ñëw taxawaay bi taxaw bi j'espère que taxawaay bi rafet na en tout cas bi neex na ala daw na macha allah lii moom bu ñu koy gëj di def

sœur cousin cousine ñëpp a ñëw tout le ku ci nekk sa loo am yaa ngi indi sa doom pour bégal ko wala nga indi sa borom kër wala nga indi sa papa wala nga indi sa yaay vraiment on est très yu maas du yem foofu on va agrandir incha allah jurbel moom jurbel moom vraiment ñun dinañ fi nekk def fi loo xam ne dina mucc ayib loolu daal laa am si lu may wax Diourbel moom suñu Diourbel la ñoo ko moom on va tout faire pour développer Diourbel ba nga xam ne dinañ fi def loo xam ne duñu ñëwee benn région incha allahu rabbi ca kaw ca kanam yu maas. mais mën nañ xam secret yu maas parce que gis nañ ñi ñëpp koo wax mu ni glace yu maas crêpe bu yu maas nit ñi daal taamu leen nii daal yéen daal nit ñi ba ñëpp jàpp leen nii lan mooy seen secret. yu maas daal.

loolu moom bëgguñu ko dañu bëgg fépp fu dem boo ñëwee yu maas lekk glace yu maas di nga xam ne ah Diourbel am na dara macha allah ñu ngi kontaan bu baax ci waa Diourbel di leen remercier yéen waa VFtv ma sœur Ndeye Khar Faye ñu ngi koy remercier bu baax moom tam gis nañ engagement am envers Diourbel lii yëpp moom moo ko commencé moom moo jiitu ñun ñu topp ci ginnaawam Ange hein, mon frère allez merci. c'est la présidente directrice euh, de Youmaz. voilà la perfection et la qualité c'est Youmaz. merci encore vraiment merci un des membres de euh, l'association Bideo Events voilà merci à euh, les téléspectateurs toujours au théâtre de verdure de Diourbel avec association Bideo Events voilà ma à ma droite monsieur Pascal vraiment une fierté de toute la région de Durbel, une fierté sénégalaise. Il est là ce soir en tant que membre de l'association Bideu Events. Pascal, lu waraloon tey Je bi. Euh, parce que déjà le vice-président de Bideu Events mais aussi parce que je suis un membre depuis le début un membre fondateur du coup nous organisé l'événement, bien évidemment je suis beaucoup de membres à la première heure à la dernière heure voilà gis nañ que ni tey itam aussi ay initiative yi ngeen doon jël ak bi ngeen jël tay ak yi ngeen mës jël vraiment lepp da ngeen koy accentuer ci social mais tay dafa gën a noble ana lan mo waral idée wu ngeen xalaat les détenus les femmes détenues de de, de la MAC. Euh, c'est parce que en fait ñun yag nañ def social comme ni ko waxé mais le plus souvent dañ doon accès si euh, orphelins yi wala ci daara yi wala ci leen ak leneen ci donc euh, biñ seetloo que ni presque ñëpp ñu ngi def la même chose mais pour la plupart du temps nous duñ dem ci détenu ñi duñ def tamit des actions sociales nga xamné day pourquoi pas ñun tamit ñu combler ce vide euh, ci lañ amé cette initiative de faire un dîner de gala ba nga xamné dañuy euh dajalé ñëpp dajalé que ce soit autorité que ce soit tous les fils et filles de djourbel, pour réunir ben somme suñu paré jël ko def ko don pour prison donc c'est un peu en quelque sorte un vide bu monde ñu pourquoi pas ñu combler ko d'autant plus que ñu ngi doon def ci yeneen secteur euh, yeneen domaine social yi ñu dem def ko ci prison bi euh, cette année-ci en tout cas c'est une cause euh, très euh, noble machallah euh, Pascal tay li ci gannaaw ñu ngi la doon dégg Allemagne vraiment mu nekkoon loo xamante ni c'était quelque chose de magnifique waxuma sénégalais yi mais ñun waa jurbel dañu doon kontaan lan moo waraloon dem bi noonu ak lan moo ko wund lan la woon noonu euh, ok c'est vrai que moi, Allemagne ba semaine les weesu donc pour représenter le Sénégal tu un concours d'innovation pour de Falling Worlds donc j'étais là-bas en tant que représentant du Sénégal bon c'est vrai que c'est une fierté pour Durbel Kenny. celui qui doit représenter le Sénégal n'est qu'un Durbelois, et puis j'étais là-bas pour ça. Euh. en tout cas c'est trop beau Machallah, Diapal Kenny, Demgafeu nekkal fa wa Sénégal wa waa Diourbel aussi fier nañ ci yow bu baax ba di la ñaanal yalla yalla yokule yalla yalla gën la avancer sa mot de la fin. ok di leen remercier rek di remercier VFTV parce que seetlu nañ que ni depuis le début quand on a commencé nos activités en tout cas depuis bi ngeen fi nekké ba léegi tout le temps da ngeen di ñëw couvrir ko du début jusqu'à la fin te loolu tamit bokku na ci li tax ñu mëna yex fi parce que su fekkoon dañ nekk di def des activités rek te amul ben couverture xëy na ñi nekk fi rek ñokoy xam.

Voilà, merci beaucoup, Monsieur Pascal, un des membres de l'association Peter Evans. Merci encore une fois. Nous voulons remercier Bardi Contan. Voilà, Maïkis vraiment une, autre fierté de la région de Durbel. Notre euh, Abdage, vraiment un artiste machallah complet, un artiste pétri de talent, un rossignol de la musique sénégalaise qui a montré ses preuves et que actuellement tout artiste du Sénégal de tout Abdage, nous sommes kilomètres 17 di nuyu ñuy seetaan ñëpp aussi. ñuy békkan ah, di am contentement gis la tey nga ñëw ci euh, dîner de gala bu association bi de events bi mën nañ xam un petit ana yan relation moo la andi wala tu fais partie de l'association. Wa waa xam nga moi tout ce qui touche Diourbel je suis loolu noonu laa yàgg a et aussi sama wa génération mën naa ni ñoo ne ci association donc moi j'ai été interpellé par le biais de Fatima Zahra muy sama sœur.

te loolu lii ñu naan ne liñ jot a defagum du dara par rapport ak liy ñëw on bosse de plus en plus pour aller de plus en plus vers l'avant. mais ñu ngi gis ñu lay kii ci ay sites yoo xamante ne parfois dañ naan Abdaz moo ëppale lii Abdaz la ñu jël teg fii Abdaz mais ah loolu lan la lan la nu mu demee noonu. waaw am ay nit yu ne sama ginnaaw rek di ma dooleel donc lépp ñoom la muy ñi nekk Diourbel ak ñi nekk Dakar ak ñeneen ak ñeneen ñoo may gën di pousse. comme ay Deezer ay Spotify ci kii donc nit ñi la rek man chance de la am par rapport ak nit ñi ñoy ñooy gën taxaw di ma gëna pousse vers l'avant. Et les projets d'Abdaz à l'avenir? Très très bientôt, il y a des choses qui doivent sortir. Donc euh, na ma gars xaar ci février bi inshallah Mot de la fin. Bah di euh, remercier Video Events di len encourager par rapport à l'initiative di encourager di la encourager di encourager VF parce que ñun ñep les partenaires qui ont répondu présent aujourd'hui vidéo bu ainsi que ñi ñëw donc on ngi remercier Merci. Merci c'est de notre artiste Abdage. Bienvenue à notre très chère directrice, Madame la directrice du Centre culturel régional de Durbel, la battante, la lionne, la grande dame, la femme intègre, Machallah, Tu es toute belle ce soir en tout cas bienvenue ñu bàyyi la nga nuyu euh, les auditeurs les euh, téléspectateurs de la télévision VF TV. merci Didier Ange maa ngi nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi seetaan VF TV. voilà madame tey gis nañ nga ñëw ci euh, dîner de gala bi nga xamante ni association Bidew Events ñoo amal ñu bëggoon xam ana lan moo waral teewaay bi. waa teewaay bi mooy ñëw dooleel waa Bidew Events parce que li ñuy def dafa nekk initiative bu noble initiative vous dire encourager mais initiative vous dire soutenir raison pour laquelle je suis venue les soutenir Machallah elle est toujours vraiment une personne disponible pour soutenir les causes nobles par ailleurs en tant que directrice Disney Nous les initiatives magnifiques que nga xamante ni au niveau du centre xam directrice Les <laughs> ah, beaucoup d'innovation beaucoup de défis beaucoup de motivation, c'est juste ça. Et tu sais, la culture, elle est transversale. Moi, j'ai l'habitude de le dire, nous sommes dans le social, nous sommes dans l'éducation, la santé. Donc voilà quoi, c'est la motivation et la volonté. En tant que directrice, les projets pour le centre, les projets pour la culture. Beaucoup de projets, des projets, on en a à gogo. Hein. voilà, mais on a un projet phare en ce qui concerne le tourisme en tout cas. Voilà, nous avons beaucoup de projets. Le meilleur fin. merci à Naïkhar, VFTV, une brave dame, une bonne tante. Moi, je, je la respecte et je, je l'adore aussi. Voilà. Comme tu es adorable. <laughs> merci beaucoup. En tout cas, merci. Voilà, mes téléspectateurs de la télévision VFTV, je suis avec euh, nous M. Ndiaye Noubaï Merci beaucoup, Dijange. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bonne heureuse année à la population du Bélois et de, vous, dire également toute ma satisfaction d'être là ce soir. Vraiment, je suis très content de cette initiative. Video Events mérite d'être soutenu vraiment par la population du Béloise. Parce que vraiment, on a assisté aujourd'hui à une activité très noble qui consisterait vraiment à soutenir les femmes qui sont à la marque du Jourbel, qui sont nos sœurs, qui sont nos petites sœurs, nos grandes sœurs, mais également nos tantes euh, de manière générale, vraiment. Voilà, en tant que politique, bientôt les élections, tu as un mot à dire Bien sûr. Euh, mon mot à dire, c'est de lancer un appel à la population djourbelloise, aux acteurs, de leur dire que Djurbel nous appartient. Quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos idées différentes, ça ne doit pas être euh, une opposition farce entre nous. Je pense que les élections approchent, on doit cultiver la paix. Parce que au soir du 23 janvier, il n'y aura qu'un fils de Jubel qui va gagner les élections. Donc on doit se concentrer après sur le boulot. Parce que Jubel est en retard. Beaucoup de retard, la région de Joubel, la commune de Jubel, le département de Jubel. Donc après les élections, mettons-nous directement au travail. En tout cas, c'est ce que ce mot à dire. Et je lance encore un appel aux acteurs, vraiment, de se cultiver la paix également vraiment de, de, de, de, faire savoir que Durbel nous appartient. En quelque sorte, nous sommes des frères et des sœurs. Djurbel nous appartient, nous sommes des frères et des sœurs. Cultiver la paix, c'est nous. Vraiment, c'est notre avantage, nous, Durbelois. En tout cas, merci beaucoup. Merci mot de la fin. Le mot de fin revient à vraiment féliciter Video Event. Vraiment, de comme je l'ai dit tout à l'heure, de cette noble initiative, de cette activité aussi importante pour des personnes qui sont en conflit avec euh, la loi, tout simplement. Mais vraiment, merci de les soutenir. Merci, beaucoup encore. Merci beaucoup, Moki est euh, toujours au Théâtre de Verdure. Le complexe Milka, bienvenue. Elle, c'est Amina. C'est Amina la grande dame, c'est Amina la noirceau d'ébène. C'est Amina la plus magnifique, la du complexe Milka. Elle est là ce soir vous êtes ici ce soir def li nga xamante ni moom vraiment service bu am solo bi ngeen ànd service traiteur bu am qualité Nous koy servir les xamante ni ëpp na voilà ñu bàyyi leen ngeen nuyoo. waaw asalaamaaleykum di jaaj maa ngi lay nuyu euh, la tatagal daal la jox sa <laughs> voilà vous êtes ici aujourd'hui en tant que structure pour xamante ni mu ngi def bu am solo. ana naka ngeen di dundee ak population ba léegi lu xew ñu ni complexe Milka. ok waaw groupe Milka yow tu sais comme d'habitude rek dañuy assure rek comme d'habitude peut-être loolu moo tax nit ñi am suñu confiance di ñu woo à tout moment te heure bu ñu joxe rek bëgg nañ chaque jour di innover daal peut-être que loolu la xam naa moo tax daal mais groupe Milka moom mi ngi fi nous sommes pour tout le monde pour waa Diourbel yëpp ñoo leen di xaar. cérémonie mariage tout. est-ce que est-ce que vous êtes euh, tout simplement à Durbel que Durbel est le service traiteur de yam wala da ngeen dem papa partout au Sénégal. non non service traiteur Yam ou rek ñun au niveau national dañuy dem tey rek dem nañ ba Dakar def service traiteur donc au niveau national yëpp ñu soxla dañuy dem waaw. est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le complexe Milka. Le complexe Milka c'est euh, groupe groupe de jeunes boo notre PDG c'est Malik Seck un jeune bo xamantene bi dynamique prêt à tout pour Djourbel ñun aussi ñu fekk si ko ci donc on est là pour tout le monde liggéey lañu ñu dégg ba lañu xam liggéey lañu def en grosso modo dal Milka lool la. en tout cas merci beaucoup. Merci, nous les la grande dame, la lionne, vraiment, c'était la gérante de, du complexe Milka mille merci à mes téléspectateurs Nous sommes toujours au théâtre de verdure ànd association bu Magbi, bi muy Events dañuy Dam, ci kanam tuuti ñu ñëwaat daal di ànd de verdure de Diourbel waaw ñu ngi nii ci euh, jeexitalu soirée bi nga xam ne organisé ci théâtre de verdure muy dîner de gala ak waa Bidew Events ñu am ci nag gan goo xam ne suñu naataangoo la di yëngu ci wàllu média moom la ñuy daal di jox kàddu gi mu daal di wax ak yéen nan la dundee soirée tey bi salaamaaleykum monsieur Fall. salaamaaleykum mbokk BF TV tey xaar ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jaajëfal ci sa liggéey bi ngay def nii mu doon cause bu noble boo xam ne képp kuy doomu Diourbel da koy rafetlu man dama siy kontaan trop bi ma gisee depuis bi ma lay suivre ba léegi euh, amoon sago quoi. il fallait que ma ñëw assister lii pour mën a xam réellement li ngay liggéey ci Diourbel dañ ci war a woo doomu Diourbel yëpp acteur de développement yëpp ak ñi nga xam ne ay bonne volonté lañ ñoo xam ne dañoo bëgg Diourbel dañ laa war a accompagner ci projet yu mel nii parce que lii dafa am solo lii dafay dundal dëkk te doon na loo xam ne c'est à pérenniser kon donc lu ñuy def lu dul di leen ñaanal une bonne continuation te suñ borom tekki loxo même doon ay édition yi édition yu bari incha allah ci kàttanu suñu borom. kontaan nañ bu baax kooku mooy monsieur euh, di ko xam ne suñu naataangoo la di yëngu ci média nekkoon tey gan boo xamante ne Dakar du jógee ñëw ci événement bi waaye nag waa Diourbel la en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax nga nuyul ma sa waa structure nuyul ma sa waa kër ak yëpp incha allahu rabbi beneen yoon fii lay doon ci plateau vert bi merci beaucoup.

yaram day day jaar ci deret day dugg ci xol léegi nag dama leen di bàyyi ñu nuyoog yéen waa Jurbel su ko defee ngeen xamante ñoom xàmmee leen bu baax a baax a baax te ngeen boole leen ci seen bopp ndax li ñu def dafa rëy dañoo jógee ay kilomètres kilomètres kilomètres ànd ak suñu rakk la sama rakku bopp ñëw ba fii pour bégal ñu kon nag yoon la ngeen bàyyi leen xel désormais boole leen ci seen bopp xanaa rek ma dem ci sama ndeyjoor xam naa ko ci sama mooy mag ma paas ko mu wax ak moom ak ñun après ma soo ko jaay ci salaamaaleykum waaw maa ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di kontaan si yow parce que ñoom Izo balaa may wax ak ñoom wax nañ ma li ngay def pour ñoom. d'accord wax nañ ma vraiment li ngeen di jàppale te loolu rek c'est encouragé ñun suñu wàll lañ def en tant que jeune frère en tant que grand frère en tant que xarit ce sont des jeunes à encourager parce que ñoom tey lépp lu leen defal dañ koy xeeb parce que jiw nañ ñu ko et ça fait des années des années ñoom ñu ngi activé wu social te lépp lu pidee bu bees ci def ñoom ñu ngi taxaw seen ginnaaw ñoom lépp lu vidéo bés tey Dakar ñoom yàlla ak ñoom tax ñoo jàpp ci yëpp ñoo encouragé ñoo ngi ñuy sollicité ñoo ngi def tout bi mën a nekk ci kaw ci kanam kon bu ñu xewlee yu mel nii ñun ñoo war a ñëw taxaw pour jàpp ci bàyyi suñu lépp pour jàppale suñu suñu petit frère ah, booy xool sax moom tur bi mu tuddee euh, structure bi vidéo bi la jël parce que daf leen bëgg ci xolam ba man sax dama leen mujj bëggaale <laughs> salaamaaleykum maaleykum salaam yaay booy mais mais content nañu déjà souhaite une bonne heureuse année à tout le monde di 2022 bu neex mu bi la Events jeunes sont engagés socialement par rapport à par rapport à la soirée ci soirée nous en faveur des détenus des femmes détenues de Durbel. donc c'est très louable donc nous nous nous bu nous, nous, nous, cause je pense que tay soirée bi dañ koy inscrire ci agenda culturel wa Diourbel chaque année dañ koy def ak wa Bidew event donc on est très content d'être là di encourager initiative bi et di wax Bidew euh, Events nañu japp rek taw baye on est très très content en tout cas ñun dañuy japp ñun duñu baye te yeen tamit comme ñëw ngeen pour japp yaakaar naa ne dana gën baax ñu leen di woowaat fi déwén inshallah xana rek ma jall ci des xamna mom moy ci caat dafa melni waaw dëgg la je pense grand yi yi wax nañu lépp gisuñu lu ñu mën a def rek moom mooy ñaanal suñu frères yi ñaanal waa bi Bideew su euh, Bideew euh, Events ndax li ñu def yombul wax dëgg yàlla comme pour une première wax dëgg yàlla c'est une grande di leen ñaanal affaire yi di jëm ci kanam ci kanam ci kanam doo ñu koy feete ay at yu bëree bëree bëri macha allah. ndeysaan loolu daw na yaram xanaa di leen ñaanal yàlla te di leen wax ne leen ñu ngi leen di woowaat fii déwén incha allahu rabbi merci beaucoup merci ok ñoo la gën a kontaan merci beaucoup al yo yo it's dead in this town